mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi nga ànd si Déformation Thiès 24 comme ni nga xamee ñu ngi fi ci Tivaouane di waajal xam mooy édi gàmmu Tivaouane édition 2023 Thiès 24 ñëw fi ak équipe bu am solo bi nga xamante ni à chaque fois moom lay àndal jëm ci événement bi nga xamante ni moom dama muy gàmmu Tivaouane ngeen mbokk yi euh, Tivaouane yi nga xamante ni nit ñi commencé euh, ni euh, mbokk yi moo war Tivaouane fu nekk nit jóge na fa ñëw amal li nga xamante ne nekk mooy gàmmam mbokk dañuy ànd ak yéen dem fi nga xamante nekk mooy ci zawiya yi dem ci marché dem fépp foo xamante ni nit nga fa rek Thiès 24 dina ànd information am solo pour yéen yi nga xamante ne jàppandu leen ngeen mën a am li nga xamante ne nekk mooy màggal gi Thiès 24 dina ànd ak yéen def ko en direct wala li nga xam fii nag mooy teewoon mbokki ma ànd ak yéen dugg ci dëkk bi wala li nga xamante ni moom ci teewoon ak ambiance bi nga xamante ni moom la tuma teewoon comment dund ak période yi nga xamante ni fu ci nekk nit boo na fa pour ñëw màggal li nga xam ne nag mooy guddi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy mawlutu 2023 ak 24 nañu ànd ak yéen dugg ci dëkk bi léegi léegi mbokk yi. Cheikh Diop laa tudd Cheikh Diop. maa ngi bàyyi ko Touba Tawféex. waaw waaw waaw mi ngi tane waaw nang nang mi ngi tane. waaw mais neex na lool na wax dëgg yàlla. ñun moom dañoo ñëw pour jaay si. ñëw pour gàmmo waale si. ndax lépp benn la. waaw gàmmo gi neex na. te itam moom macha allah moom xëy na commencement bi la nii waaye moom Tivaouane dañuy jënd quoi. gàmmu Tivaouane moom day neex moom. fi moom wax dëgg yàlla macha allah day neex moom si kar si day neex maanaam euh, jàng yi day neex léppay neex daal moom macha allah ah mais xam nga rek àdduna moog looloo ànd daal waaw parce que ci jamonoy nawet lan nekk mais nag dara dañuy kii rek def suñu toile ak yooyu waaw sàkkatu noonu rek yàlla mën naa dogal te xëy na du taw si diggante bi quoi yàlla mën naa dogal loolu incha allah. jërëjëf jërëjëf ñu ngi leen di sant bu baax nag parce que yéen tamit ñu baax ngeen vraiment te na leen cee bañ a fekk waaw mais ñu ngi leen di sant bu baax waaw da leen publicité waale njaay meeg yooyu rek waaw affaire yi moom waaw. fi moom boo jaayut day neex te an moom boo jaayut maa gàmmu gi day neex waaw fi moom lépp xéewal la Ngagne Diop laa tudd Ngagne Diop ko bàyyi ko maa ngi bàyyi ko Dakar Kër Massar macha allah boo xoolee maa ngi ñëw barki démb installé démb mais macha allah nit gis nañ ni au fur et à mesure ñu ngi ñëw nank nànk quoi mu ngi dox nanga nanga te am nañ yaakaar ne dina gën a dox incha allah waaw mu war a ñëwee dëgg dëgg dëgg des na mais ñu leen séntu bi si ngoon comme gàmm gi suba la moom xam naa ñu ngi leen séntu fii ngoon ba guddi gi ba jàpp suba samit si fajar gi incha allah tuba yi ça dépend si tuba yi quoi parce que day varier selon qualité tuba bi am na fi yu 4000 am na yu 5000 am na yu 3000 bu dee t-shirt yi tamit am na yu 6000 am na yu 4000 mais boo xoolee tamit boo yokkee sa prix tamit daanaka mën na la sonal parce que dëkk bi ku ne xam na fu mu toll clients yi dinañ ñëw dinañ bëgg mais seen doole moo dul demee noonu moo tax yow bu fekkee da ngaa yokk rek mën na la xaw a tardal sa liggéey tuuti quoi a ngay jéem a fexe rek noo dóoree rek daw génn dem xool leneen Aliou Thiam Aliou Thiam dañuy bàyyi woo ba Touba Touba Mbacke waaw waaw dañoo ñëw fii pour daan doole nag waaw dañoo ñëw pour daan doole mais nag affaire xaw na métti pour l'instant moom na alkaati yi ak ñun ñun ak ñoom ay mbokk lañ nag mais nag koo télé bi du yomb quoi du yomb ndax la problème citoyen ay citoyen kese lañ xam nga mais nag comme ça ñun comme ñun ñu ñëpp ay masse ambulants rek ñun sayoon ñi nga xam te ñoo suñu njiit ñu jàppale ñu quoi wàññul daaw quoi wàññul daaw comme tuxuñ sàccuñ waaw nangu neen liggéey ay ndaw lañ nañ ñu jàppale te yàlla tax ñaan nag loolu du force ndax koo télé pour oto la n'est-ce pas mais xam nga comme ça comme euh, ñoo ko mënewul mais ñoom ñoo comprendre quoi comme ça dañuy bokkaale comme ça comme teetuwaale yooyu noonu mënut a ñàkk ndax ñi fi ñëpp bëgg nañ liggéey te amuñ liggéey usine amu fi mooy loolu et cetera mais comme nañu jàppale quoi nangu ñoo liggéey de yàlla xam ne ku ñu jàppale dem boo gisee nit ñi nekk fii di dugg si gaal gi yu yëpp lee quoi dañuy dem ba am dañuy dem ba mujj suufir yi moom dañoo sonal quoi ma ngi nii sama bagage bi sax ma lal ko est-ce que nekkul tamit yéen yéen a nekkul ci yoon dèjà ñun man ma nangul fois kaw tali yi moom pour oto la mais comme citoyen lañ te ay jeunes lañ bëgg nañ liggéey matewuñ ko dañuy comprendre rek comme ça lii xam ay programme yi nga xam ñett fan la ñaari fan ñett fan loolu yàggul ñu mooy ñu moom jëfewul comme kilifa yi ñëw na moom ba génn léegi li si des moom dañu koy muñal ak méttiwul quoi li def sama bagage bi maa ngi ne bëgg ko laal sax mais mën ma ko lal quoi mais nag ab sant yàlla comme nañu xëy moom di mën a xëy rek sant yàlla la mais nañu jàppale bu baax a baax nañu jàppale bu baax a baax dañ koy ñaan dañ koy ñaan du poos nag dañ ko waaye client yi benn benn rek jaay moom dafa ne si loxo yàlla rek xam nga dangay wakkilu yàlla buur rek waaw yàlla moom boobaa mooy moo lay fekk si boppam waaw nax moom moo ñu ko wax inna laa maa saabiriin lañ wax waaw maa ngi ànd muñ kat ay kon nañ mu ànd muñ rek waaw xëy na ñu gis ko te fii ba bu sell la nañu bàyyi ñu liggéey bëgg nañ liggéey de nañu bàyyi liggéey sant nañ leen bu baax nag yaay def sa taxawaay maam ay da laa tudd dëkk Diourbel dañoo ñëw pour jaay ay fer la ñuy jaay di ci woo suñu client yi ñu ñëw fer yu baax ku ñu ñëwee moom mooy loolu yaa ma gën a xam waaw am na 500 am na 600 am na 300 250 fii moom mooy neex yomb la yombati rëccu lañ ko tuddee hmm, ñun moom ñu ngi fiy doog a jaay ren mais neex na de macha allah moom bëgg nañ chaque année ñu di fi jaay si incha allah. bëgg a ñëw xanaa ñu ñëw ñi nga xamante ne tamit ku bëgg a ñëw rek ñëwal fii moom jàmm la. mooy daara ji daal neex. góor ñi tamit ñu ngi ñëw waaw waaw jëndal seen jabar di farantuwaa kémbooj kaw la wax bul de ah gisaguñ client yi daal man am naa fi 4 jours non ñu ngi ñëw ndànk-ndànk dañ doon installé depuis lool. ñu ko jaay waaw mètre dix mille seenee mètre vingt mille la. lal bi dafa amoon jafe-jafe ak ak kii policiers moo tax sax lal bi yéex parce que fii dañ ko doon tere pour gaay jaay. Cheikh Diop la ñu gën koo xam Cheikh Ndar alliance bi Cheikh Ndar Cheikh Tidiane Diop en plus. waaw waaw di doomu cees waa mais chaque année fi ñu nekk ñun. Mhm, di liggéey ci téléphone comme nii comme sax di jënd téléphone yu bees teg ko ci vitrine ko jaay mais comme dab Thiès bu ñu nekk aussi loolu la ñuy liggéey. événement yi dañuy génn dóori waar xam nga rek ñëwaat comme fii installé gannaaw am nañ xam-xam téléphone dañ koy réparé comme nii suñu amee client boo dafa ñëw présentement am problème boo xamante ni téléphone dafa am so coono ñëw ci gàmm gi vite fait dañ ko koy defaral mu dem en même temps gis nga boo xoolee vitrine bi dañ ci def suñu affiche yëpp jox suñu numéro tout ça bon loolu daal moo ñu indi ci gàmm gi loolu mooy suñu professionnel yi ok voilà waaw xam nga dafa am ñett yoo xamante ne fii en Afrique rawatina Sénégal ah, lu mënul ñàkk la événement yu mel na màggal day mel na gàmm ak yeneen yu mel na tabak seeg yooyu njaay mi day différencé parce que dañuy am client yoo xam jóge fu sore am na dëkk dëkkaan yi xaw a sore yi ñoom dañuy am problème yu mel nii am téléphone yenn qualité yi léegi yow boo déplacé wu sa dëkk ñëw fii ak ay accessoires comme sama torondoo bi moom it comme dab da leen koy andil defal leen ko moins cher njaay moomu day gën a gaaw par rapport ak nga nekk sa dëkk loolu moo gën a yaatu ko nga nekk foofu mais foofu aussi fi ñu nekk dañ fay fortaatu mais lii lu ñu yàggay def lu ñu baaxantal la wax dëgg yàlla ay at yu bëri ñoo ngi fii wax dëgg yàlla du ñu am problème nag moom sincèrement parce que lu logique rek la ñuy def tey ji boo calculé dañuy jënd téléphone yu bees ci magasin bi ñëw def ko fii suñu place di jaay en plus bu fekkee dafa am xam dafa bëgg a changé téléphone mu am problème en cas dañ ko koy changé comme réparation en même temps mais di daal daanaka baaxantel ko chaque année ñu def kon ñu ngi ci gis maquette man dafa am ak business man day xaw a nuroo mais tey dinaa leen ko différencier pour téléspectateurs yi seetaan dafa am ñoo xamante ni danoo initié wu ci lii dañ cee nekk uniquement ñooñu ay businessman lañu partout dans le monde dafa am businessman milieu bii nag milieu wu business la milieu business jógalante ak jënd ak jaay kooku ko gis day am léegi mënut a ñàkk erreur comme ni ko gars yi wax naan kuy gàmm ak kuy raas dem duñu bokk léegi ñi nga xamante ne on a des années ci métier bi xam na ni ñun amuñu fit googu par exemple ma tey ji ma expliqué la aw ma fitu man jël lu bon di ko jaay nit mu dellu siwaat sama kaw tey ji par exemple bu fekkee tey beneen client day yàq sama njaay a ñëwaat il faut ma satisfaire client boobu benn côté la encadre ko comme kii li mu wax daan ni dóor maan ñun mënuñoo seq ak dóor maan dara parce que ñett moo tax ma yaatal ko bis naka tey ngeen comprendre dañ yor ay soutien de famille lañ yor ay njaboot bi ci jiitu il faut ñu jéem a sell li ñu yor pour mën cee jëriñoo ba pare mooy tax lii machine la li ñuy liggéey soo ko sellalee dina la jëriñ soo ko tegee ci yoon dana baax troisième abcès bi moom mooy am na loo boo ci yàggee dara du la jaral leen nii da ngay liggéey te yàlla rek tax tey def lu jub gis nga fekk ci bërëbam mu nangu faa yàgg taxaw fa xëy na am na logique bu muy demee comprendre loolu moo tax ñun ay businessman lañu bon en plus marketman lañu mais mënta ñàkk ñu rax suñu biir comme début bi li ma la wax loolu mënta ñàkk mais responsable boo mu gis comme nii ñu fees dellu toog dañuy jóge fi sori ñëw di liggéey loolu métier la waaw métier la. xanaa sandis rek man na yàgg naa ñëw Tiwaawan moom di jaay waaye taw féex rek ak ndam waaw ci barki borom guddi gi waaw dëgg yàlla moom depuis mardi ba léegi maa ngi ko ah yàlla bu baax parce que ñun dañ daan ñëw fii ñu ñuy dàq du ñu sonal daal mais ren moom wax dëgg yàlla moom Tiwaawan moom macha allah. ñu ngi jaay kenn sonaluñu place yi moom jaay ñu moom dëgg yàlla policiers yi daal def nañ seen liggéey moom wax dëgg yàlla yor nañ kaaraange ñu ñuy aar bu baax a baax a baax sonal luñu ñu sàcc yi sonal luñ ñu ñoom ñu ñuy dimbali wax dëgg yàlla moom waaw ren moom ute naa yi daan am moom léeg-léeg mu am jafe-jafe parce que léeg-léeg nga jaay jëmmu xeeb ko mu ne li nga ma jaay dafa ndaw wala yooyu waaye nag affaire yëpp a seer fu ne lépp a seer soble kilo 800 nen bii 3000 et quelque lay jar dafa seer daal a ah xanaa ñu góorgóorlu comme ñun ñun daal dañoo tàmm daal jaay moom xëy na sax mën nañ ñu gis suñu bopp mën nañ ñu bañ a gis suñu bopp mais ñun ñoo ñoo tàmm daal rythme ambiance Tivaouane ñun ñoo ko tàmm